asalaamaaleykum man maa ngi tudd Awa Seck nekk présidente Sopp Nabi Jaxaw bu Alaaji Idrissa Gaye ñoo ngi jógee Jaxaw ku fi sollu lu mu si mbootaay Sopp Nabi Jaxaw nga bokk ñu ñëw teewal Idrissa Gaye ñëw teewal suñu soppe bi jiite Sopp Nabi Alaaji Modou Gaye Sopp Nabi nekk si gannaawam ndax ñun Idrissa Gueye moo ñu tuddee sopp nabi kon ñun si njabootu Idrissa Gueye lañu bokk looloo waral suñu teewaay tey Idrissa yónni suñu wax bi li ñu jàpp nañ ko bàyyi ñëw wuy si Mor sopp na bi looloo waral suñu teewaay ñu kontaan ci trop nag waaw Alaaji Mor moom dañ koy ñaanal mu yokkoo yokkoo yokk ba yëg ndax lu baax lim daan def ndax ñun dañ daan tagg yonent bi di ko tàntal Idrissa Gay di ñu ko gàmmul moom da ci daan ñëw di ci teew di ci def alalam kon su ñëwee di wóolu si affaire diine yi dañ ciy sant yàlla bu wér a wér ma luñ koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd yokk ko wéral ko kàttanal ko ndax képp kuy sopp na bi rek muur yi am na yéene dagg ay biyee ma joxe ko yal na ko yàlla kuy sopp na bi rek ñu ni Mor may na la biir màkka yàlla mën na ko ndax moom li muy def yàqa rek moo tax mu di ko def deful ngir gis sal te deful ngir gis leen ma ndax lii ku ko mobiliser jël sa gannaaw teg ko jël xaalis bi teg ko ci loxo Idrissa Gaye jël lépp teg ko ci loxo Idrissa Gaye daal di nekk ci gannaaw kon nit ku baax rek moo mel noonu ndax moom bu ko woote woon te woowu ci Idrissa sax ñu fekk ko ci waaye ki mu ko ji ki mu ko teg ci loxoom teg na ko ci ku ko mat a teg ci loxoom ku bëgg daara ku bëgg alxuraan ku mën a soppi nit ñun ñu xam ci dara ndax ñun moo ñu soppi ba ñu tudd sopp nag ñuy sant bu wér di ñaan lii yàlla bu mu nekk suñu mujjantalu daje yàlla nañ ko fi daje ay ati ati at yàlla ba ko fi ban projet bi yëpp lépp lu mu entamé rek yàlla na ko Seydina Muhammad nangu sallallahu alayhi wa sallam man de fu ma toll man xadi tafsir laa toll ndey doy mais mooy sama tur bi bi mais xadi tafsir moo gën a suuf mais du ma julli mukk te du ma ko ñaanal ndax fondation bi mais sama ki ma remplacé dafa gaañu yàlla na ko yàlla yërëm ma su ko gis. Serigne Ablaye rek la daan jokkool di waxanteeg moom mais mosul gis Serigne Ablaye mosul gis kenn staff bi du gaa ñëw suutu sarax si ki tax sama xarit boobu Njaay Njaay Jaxate mu woo ma téléphone kooku ko gis ñu ngi si tey mu ne ma xadi tafsir foo ne ma ne ko maa ngi toog si garab bi mu ne maa ngi si bâche bi waaye sëriñ Assane Gueye Ndiaye. ma ñëw ba si gis ko muy rapport ma ne ko woon bëccëgu maa ngi nii mu daal di ñu gisal te mu ne ma délégation bi ñëw na sëriñ Mor Gueye mi ngi toll ci péage bi dafa bëgg yaa nuy accueillir su ma leen gis ki gaañu ma su leen gis sëriñ Mor Gueye déplacé ñëw fa geste boobu dama ko fàtte su ma wax sëriñ Mor Gueye waaye di koy ñaanal rek yàlla lafal ko jot yokk sutura si yokk xéewal si li mu bëgg daal doo ko xam yàlla ko nabi de ci soit délégation yi gis ngeen sunu yaay bu boy yi ak seen oto si jomb ñaaw yi def yaay boy ñu ngi lay nuyu di bàyyi nga présenté ñu wax délégation bi ak fan ngeen jógee asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu nuyu man la Soxna Khady Diagne secrétaire mbootaayu sopp Nabi nga xam ne Soxna Awa Seck mooy présidente bi fële ca Jaxaaw laaj Idriss Gueye teg ñu fa samp ñu fa ñu nekkal ko fa. ah yéegi na foor na ndax bis bi dañu ko dara jaale mooy li ñu tënk mooy li tënk jullit mooy alxuraan alxuraan nag ku di jullit foo déggee ñu ko fay jàngee mbaa ñu wootee fa ñuy ji moo waral suñu tey mu wuy si El Hadj Idrissa Gueye wuy si Mor Gueye sopp na bi ndax bokk ci taaral jëm bi ndax dañoo bëgg bu ëllëgee bu ñuy lim ña teewoon ca ndaje ma doon décoré xale yi jàng alxuraan ñu boole ñu ci looloo ñu yëkkati. El Hadj Mor Gueye ñaanal El Hadj Mor di jullit war nga ko ñaanal yàlla lu mu mën ren su diwénee yàlla na ko mën ndax lii mu def ku ne bëggoon na koo mën mu mën ko ca di ko def kon defaale ne ko képp koo xam ne bëggoon na ko la Mor sopp na bi mention spéciale à Mor Gueye sopp na bi daal nañu jërë dafa parce que daaw moo gañe bii bi. di la sant sax moom tàmbali amul fu mu yem. bi lay la sida yi la wéru ndax daje yëpp daje naa daje bi leen ci gën a. muy ron waaw li si lay laaw. dajale. bi ma dem ci soppali bi. dajale daanaka ma ci tàggu. këru diine yi d'accord naa ci bu yàgg. macha yàlla seede ni. Euh, kon nag daal li ñuy def sama xol dafa set. gërëm ko ak xol bu fees. Mm. boole ak ci yonent bi fees fees ci mu mu digg. këru diine yëpp teew amal ka ne ko. moo tax ma jël këru diine yëpp. ca na ba naayee ñeseen tuuba ci waawoon. dañuy tuwaar kala sana. tënkaat ko jox ko. kii nag la àndal muy borom ba mu wax. wax nañu félicité bu baax a baax. mais kii ak kale. ndax ak bu baax a jàppee ci ñeseen di jàppee. parce ñi nga ñi nga xam ne. yar bi gën a métti yéen ak yéen yar Awa Diop. parce que yéen yaru waxtaan ak mbokk yi ba teew. yaru jàngal. ñi mu yaatu def mu boo di sant yàlla di ko tatagal di nag suñu xol def ndax bés bii ñu tuddee bésu alxuraan ñu ko defar ñu soppi na ko fa wax jaay kon yàlla na ko yàgg teewe dinañ jotalee nuyoo délégation yi mu àndal yëpp ñaan yàlla nu yàgg kat ñi nga xam ne ko yàlla dëgëral seen wërsëg jërëjëf salaam ki nga xam ne moo ko euh, lan yan kàddu nga mën wax naa wax ji sànq. yéen tamit mooy tijjukaay bi mooy tijjukaay ñoo xam ne. ku féetal seen bët sa moom téléphone. tëjuñu seen i sa liggéey ak seen dimbali yëpp si moom la jëm. bu ko leen soxloo sax pour moom gis na bor. kon nag ñu ngi koy ñaan yàlla si barke salaam salaam. yàlla kaweel ay darajaam. kaweel ay mbiram. te liggéey bi mu sumb mu dem waxuma Sénégal àddina yëpp. xam wooteem bi xam gën a màgg wooteem bi jàppale ci. ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko wëram taxawaayam alhamdulilah. alquran la suñu mag Hadji Idrissa Gaye organisé ko suñu wayjur sëriñ yabal nu ak jullit yëpp bu nu yabal tam dañu war a ko ndax ay jullit lañ te bisu alquran la. loolu mooy jot am solo tamit ñu koy organiser ci Dakar bu ñu dimbale ba alxaaji Mor sopp na bi yëkkate alalam ko alxaaji Idriss li sagu Cees sagu jul la yal na yàlla may ñu bari ci mbaaxu yeneen yi sallam ñaanal tam télé bi suñu télé la ñoo ko moom moom ngeen ko ci jàppale yal na yàlla bu bu baax. Serigne Khadim ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ndokkeel ñi nga xam ne ñu ngi seetaan télé bi te muy suñu télé parce que fii la nekk ci Thiès di télé boo xam ne ay nit ñu àndandoo. yor seen stuut di liggéeyandoo samp ko fii ci Thiès kon yaakaar naa ne ñooñu tooguñu rek di xaar ku leen jàppale danoo jàpp ku di leen jàppale da nga leen cee fekk waaye tey l'islam moo amaat ndam parce que alquranul ci weeru koor la wàcc tey ñu dajale fi lii alhaji moom day sopp na bi yëkkati 10 millions jox ko ki nga xamante ne si mooy alhaji Idrissa Gay ne ko alquran mooy li nekk ci kaw lu nit mën a am ak lu nit mën a doon boo bëggee nekk ca kaw tegul ci kaw alquran mu organiser concours alquran fii ci promenade waaye ku fi dugg xam ne promenade yàgg naa am tànn waaye tànn bu mel ni ngi fii door a am parce que li ñu ko fi tàntal muy alquranul karim lu ne nag tànt nañ ko fi waaye ah, alquranul karim ñi ngi ko fi door a tàntal ren bu première édition di ñaan Ngor Gueye sopp na bi ko yàlla yàlla dëgëral ko yàlla yàlla sàmm ko parce que ku ko mën a yëkkati jox ko alquran bu ne alquran ñor na ma wax na dëgg te loolu mooy li nga xam ne moo mujj kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku ci dugal sa man amila saleen fali nafsi kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu seen ndono biir alquran la Cheikhul Khadim mi sa sëriñ maam Cheikh Seydi Hadji Malick bi sunu sëriñ ak mag ñëpp bu ci nekk sa référence alquran la sëriñ Bamba mës sa sol mbub mu am poos waaye boo ma sax andi kaamil daf naan bëri jóg taxaw naan kitaabun karimun min karimu mukarramin li abdil karimin nawrazat wal farabal kon alquran ñun bu ñu bëggee réew mi am jàmm nañu ko delloo ci alquran ñi ngi wax nanu ñaan di ñaan waaye ñoom ñi yor réew mi nañu delluwaat fonk ñooñu alquran bu ñu ñaanee jàmm am waaye bu toogee di wax te ñëwuñu ci ñooñu alxuraan réew mi kat mënu ñu leen a ñaanal te ñëw ci ñu donte ci réew mi la ñu bokk saa yu xëyee def ay dog mais bu ñu bëggee la ñuy ñaane parce que ñoom seen euh, kenn du ci ñaan waaye kaamilu alxuraan xasiday mag ñi buñ ci ñaanee réew mi am jàmm loolu nag bu ñu ko bëggee nañu dellu si alxuraan dellu ci ñooñu alxuraan fonk ñooñu alxuraan jox leen seen cër te xam ne réew mi alxuraan moo ko barke alxuraan moo ko téye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi di nuyoo Sénégal yëpp man ma Abdou Ndiaye di sët Alaaji Ahmad di sant sunu borom di bis ah, sunu xarit sa moo nekk organisé muy bis boo si aju sant bi si weeru koor bi muy bis bu alxuraan ko si ñaanal yal na yàlla yal na ko yàlla ful wërsëgam ndax li ñuy wax rek eh, bu ñëpp defee nii diine eh, loof la sunu maam Alaaji Ahmad Modou Ndiéguène daan na ko wax diine nag bu loof la bu ko si nekk jàppee rek mu taxaw su moo nag wàlla moo ngi ko siy dox bu kaneen defee nii kaneen def nii yàlla xam na ni réew mi daara yi dina dox ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant sunu mag Idrissa Gaye moom it xale yi fi jël prix bi ñu participer ñëpp yàlla yàlla sàmm yàlla na liñ fi jàng tasaare ko si biir li si barke Seydina Mouhamed ñoo ngi ziar di baal àq ñëpp di baalu ñëpp àq si barke Ramadan si barke salaamaaleykum wa rahmatullah di yaakaar naa ne lu ñu màgg ay ba tey fa tabaarakallaahu ak cappaandaw gi dañ ci yàlla waaye di wax jërëjëfee yàlla subhaanahu wa taala moom mi ñu may fatailaahu lii nga xam ni mooy ngën tey ñu def ko fii di ci portaae Cesuwaar ànd ko tabaarakallaahu Morgan Sob bi waaye am naa Idrissa Gueye porte def lii day lii ne rek kay dëkk ndax lu nit di jàng ak foo ko mënta jàngee te jàngoo alquran mel ni jàngoo dara ndax alquran mooy lépp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko dégg léegi ay bi sox na ko jàng jàng nag mooy loo xam ne day jëriñ ñëpp lépp foo xam nit da koy def dafa war a jàng lii nag fu tabarakallahu mooy li nga xam ne mooy dafa Sénégal dañu gën a sagal alquran nañu gën a dolli lii mooy tax jàmm am ci réew mi lii bu fa deful jàmm te bis yu mel nii dafay nekk loo xam ne la ci réew soo gisee lu mel ni dong yeneen réew lu mel ni dong la kon ñoo ngi sant képp koo xam ne jàpp ci bis bi jàng suñu alquran te ku alquran wax yàlla kon képp koo xam ne ci bis bi wa tabarakallahu alquran ko def waaye di sant amaay Idrissa Gaye bat nga xam ne bat na ko sëkk yi mu doon lii am na ko am soo ko joxoon mu mel ni mu mel waaye moom taxawaay bi ci am fulbe bi ci am fayda bi ci am ak bëgg alquran moo waral li lépp jël ko teg ko ci loxo loolu xam naa Idrissa waaye Mor Gueye sopp na kenn du ndax it fa tabaarakallah alal bi toll nii ak alal ñi sax xol nga yëkkatul toll nii def ko ci alquran jëlaat mu déwén 15 millions pour déwén loolu yaakaar naa ku bëggul alquran doo ko def te loolu xam ni nag tabaarakallaahu day tax ñeneen ñi góorgóorlu waaw su mel nii nag la président war a dooleel gëstu leen xam ni ñii fa tabaarakallaahu mooy ñi nga xam ni ñooy développer société bi ndax tey ñi fi nekk nii gars yi sëriñu daara yor ñii duñu toj duñu daara bu gëree mosoo ko gis te moo ne am nañ leen naqari sëriñu daara bu maas mosu koo gis moo ne am na leen naqaree waaye dañoo xam ne alxuraan ay lépp yàgg yàgg lépp lañ kon leen di sant bu baax a baax yéen it fa tabaarakallaa di leen ñaanal télé bi yàlla na jëm ca kanam bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su koy siiw di ko bàyyi xel bu baax baax yàlla yàlla fay leen jërëjëf suñu groupement moo ñu fi indi. waaw ah, ah, ah, sama yaram daw si Mor Gueye ndax daan na ko def nag masuma ko fekkee waaye tey dama ko deewee gis dama daan dégg nañu si rajo bi dañu naan moom lañ def na lii def na lii waaye macha allah dama koy ñaanal su mën ren rek na mën parce que koy def si way laago yi di ko def si association jigéen ñi di ko def si alxuraan bu nekkoon sopp na na bi man gëm naa ko waaw. donc présidente ñu délégation bi. délégation bi Ndeye Amy Niang présidente bi boot na ay walaabo foofu la nekk. ko taarale alquran ñu jiitu ak délégation dañ ko installé bu fekkee inna umura bi xawaatimiha DG Abdoulaye Guèye sa cant ak sa ngërëm jiitu ci lan ñu alaaj Idrissa ñu jiitu nga yees. ñoo ngi moo ko jox. Eh. suñu nangu boobu ñu koy jël bu baax soxna El Hadj mooy jox. Soumaïla Sonko moom El Hadj Daouda Faye di ay wóor la waa nga xam ni soxna Soumaïla di jigéen nga xam ni ñu ko duppee nga xam ni mooy première martyre ci diine l'islam moom yàlla ngi dogal lii da koy. tabarakallahu waaye yàlla moo wax ni. laa taabudu ilaa iyaahu. yàlla yàlla fay leen seen taxawaay. lii ngeen def ci réew mi def ko ci Thiès def ko ci Sénégal El Hadj Idrissa gis na ko waaye le président El Hadj Mor Gueye soxla na ko gis na ko. nee na ma 9h10 ku ne xam na ni. fonk am na 100000 francs ci ko des na ay waajuram waaye Pape Thiam ka moom mi doon dox rafetal na jëm ci ay mag tegaat na ci yéen 200000 ni 300000 tabax na daara pour dooleel ko loolu tabarakallah ay daara gi 2010 ala di sa yéen a mag na wa tabarakallah kon na metti kan mën ci loolu tiisee bi mooy Ibrahima Sall ba bëgg ñëpp tàkk mbokk ci bokk wa jumaa ñi taxaw ci kaw président bi ñu ngi yàq traite bi. di ay moquette. nii la bisu tey nag. ala ci bis nag taxaw moquette. nañ ñi suñu masana yow mbay ñooy fajal. koo xam ne a am xarafan. dafa dese benn baax la ñu jékki. unaan rabbana bi wadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharram. fataba rabbana li yaqimu salata. yonent bi ala ci bis moo koy borom Makka yàlla ko yàlla barkeel yàlla màggal ko feebar jóge ci réew daara yi sëriñ Omar Lay ci réew daara bu yi fataba fa la nekk am na stand jox am na cent mille Cheikh Gueye sa mag waaye maître kan bi ko jox avocat daara yi ñaanal yàlla dolli na ko vingt cent mille yàlla ñu tekkal teewaay yi alaji bi di ci teg sëriñ nee na ñu ko jox madame Awa Diop Mbacké lii yal na yàlla moom mi ñu dénk daara yi ba doya wërsëgam li mu yéene ci diir moom la daara yi di tëral kado fii yéene ko daara yi di daara yi bëgg nag ba tey la yi ne am na ñëw fii sëñ Mor Gueye jël joxoon ñu ko madame la ministre conseillère du président Macky Sall woon communicateur yàlla yàlla fay ñu Mor na yàlla fekk fan mu gudd lool tànd wér yaag sa mag ji sëñ Cheikh Ahmed Tidiane yàlla na yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot yokk seen wér dolli seen wér mu bari lool tànd wér yàlla fa leen ci am ndog kontaan nañu baax taala wa barakaatu Gueye Ndior bëggay ngumba nga nuuru saa jël ak borom bawul tey gàttee jën ba ñaan mi ñaanul kenn gay dëkk la ñaan nga may ko naaru soor keroog bi sëriñ Ndiaye Mandela Fassar la sukkandu mboona jëy buur boobu nga xamante ni moo yilifoon Kajoor ak Bawal rek bi mu Kajoor soxla woo réew mi daa ñëw fekk sa maam sëriñ Ndiaye Mandela Fassar daara ji samaam di jàngale mantiq alaaji Mor Gueye sopp na bi alaaji Cheikh Ahmed Tidiane Gueye alaaji Khalifa alaaji Cherna seen maam di jàngale bayaan seen maam di jàngale risaala seen maam di jàngal bind waa daara ji Serigne Ndiaye maa ngi ko pasar la suba bi ngoon jëy ni ko dama soxla woo diggante Kajoor ak ma jiite ko muy doon buur mën ko dinaa ko ñaanal te balaa fukki juróom di lii lif Kajoor ak Bawol kooku muy sopp na bi Alaaji Modou Gueye la bàyyam tudd Alaaji Modou Gueye cey ga la bàyyam tudd cey ga Amadou Ndori Ndori cooje Serigne Diagne maa njëkk a Fassar ma Gueye Anta ma Daga Gueye ma Penda Cissé Gueye Babacar Ndismi Walid Saman Soufiyu Omar Abdourahman Ababacar Aliyun Ibrahima Hiita Cheikh Abdou Khadir Jeylani Moussa Abdoulaye Yahya Saïd Ibrahima Moussa Al Jawdi Seydina Asan Asan Musanna Fatimata bint Zahra Mamadou Rasulullah kooku mooy El Hadj Mor Gueye Sopp Ndabi El Hadj Meen Gueye la ndeyam tudd Fatou Gueye ko jur Walimata Ndiaye Soxna Fall El Hadj Mor Gueye Sopp Ndabi El Hadj Ahmad Tidiane Gueye seen yaay nga tudd Adja Mbène Gueye El Hadj asalaamaaleykum wa rahmatulah. ak fondation Soxna nationale ak école nationale bi mu ak ñi ma xam ne ñëpp nee na ñu ngi lay sant ñu ngi lay di kàddu ñu àttal bu may kàddu ñu ngi di ko ñaanal yàlla El Hadj Modou Sopp na bi di sant bu baax di sant di ñu sagal ak ñu ànd ñëpp ak ñoom daal jërëjëf man lu ëpp loolu jàll na mais nga xam ne ñoo ngi doon sant moom kenn mënu la ñuy fay parce daara mooy école mooy éducation mooy fi ñu yore xale mooy fi ñu jàngalee xale mooy fi ñu xamalee xale yàlla xamal ko diine ñooñu leen war a jàppale loolu El Hadj Mor Gueye def jël lu bëri jox ko daara yi pour xale yi di gën a góorgóorlu si seen jàng ci alxuraan donc yàlla na leen gën a jàppale donc woo kilifa diine yëpp daara yi ñu gën a jàppale ndongo daara yi. Hmm. waaw di ko sant di ko ñaanal yàlla li mu def vraiment ak bu rëy la parce que boo jàppalee ndongo daara mooy jàppale nga société yaa ngi ñii yar ay nit yar ku leen jàppale jàppale de valeur bi nga xam ne tey moo euh, nekk ci El Hadj Mor Gueye Sokone Nabi liggéey bu am solo euh, ñu fekk ko ci bis bu am solo bi fas yéene waxtaan moom maam ñu ngi lay di la bàyyi wu ñu. awju bi daal ñu sant yàlla di sant di ziar ci weer bu mag bu sell bi di weeru shawru ramadan bu baax waaw man la soxla woon Seydou Ndiaye pour ma xam ci la femme de valeur waaye may conseiller technique bu élage mu koy soxla bi maanaam di ko conseiller ci lépp loo xamante rek en la ak luy jëmale kanam sopp na bi par di wax élage mu koy sopp na bi Euh, lii bu ñu gisee mooy résultat de leur travail ndax moom ku ne na ni jàmbaar la ku bëgg diinal islam la benn référence la am muy Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam te ko ci taxawaayam euh, lii bi mu koy mbëbët yàgg mu mat fukki million teg ko ci la ko rajo Idrissa Gueye am ko ulama yi nekk euh, concours de l'hôpital Coran premier bi ñu jox ko 3 millions deuxième bi 2 millions troisième bi 1 million waaye nag ci biir bés bi gis nañ fi le directeur général de l'AIBD monsieur Abdoulaye Dieng nga xamante ni ku ne xam ne jàmbaar bi biir ci moom tamit ñëw jàpp ci bés bu baax ak muy may nuyu bu baax a baax a baax monsieur Aliou Badara Gueye nga xamante ni kenn ci El Hadj Mopé sopp na bi la loolu ñuy wax sopp na bi SA le ministre Pape Amadou Ndiaye euh, délégation waaw bu bëri ñëw nañ fi le maire aussi de la ville de Thiès na ak soxna bi international ak national ak ulama yëpp teew nañ fi ak staff El Hadj Mor Gueye sopp yëpp nga xamante ni taxawu nañ ci bés bu baax a baax ba bi yem ak nit bu baax euh, El Hadj Imam Ahmed Dem nga xamante ni la ci El Hadj na di wax tamit li tàmbali la ndax El Hadj Mor Gueye euh, yemul euh, vente de terrain rek waaye dafay def jàppale diine l'islam képp koo xamante ni alxuraan daal moo dalay teral di la jàppale te ngir lan ngir ni Seydina Mouhamed rek ko aussi ci développement social bi lu bëree bëri bëri muy korité muy tabaski muy lu mu mënti doon waaye tey jii ñu ne jouru koor tey jii bés bi mu def ba pare nag li ci gën a rafet mooy euh, mu bàyyi ba mu jeex mu jëlaat un chèque de 15 millions joxaat ko El Hadj Idrissa Gueye ne ko bu déwénee ñu préparé concours donc di foofu di ko ñaanal di ko fan ak xam ni doomu Thiès la lu ko waa Thiès yëpp ñaanal ci li nga xamante ni moo koy def et di ñaan aussi le président de la République gis liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey à travers le développement social au niveau du Sénégal mais aussi partout dans le monde te tey immigré yu bëri am terrain am nañ ay grâce à El Hadj Ndiaye donc di wax liggéeyu El Hadj mi ngi noonu c'est un homme de cœur un homme de sagesse un homme de paix nit koo xamante ni ku fonk doomu aadama la fonk jigéen ñi teral leen fonk ñëpp macha allah te ñu kontaan di ko ñaanal gudd fan ak wér ba liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéeyal yàlla suñu borom ak référence am Seydina Mohamed ñu wàññi ko. def benn sortie li wax ni ko ah, lan ngeen gis moom la soxla ba ñu ko jox. boo xamante ni nii wi moo ko def askan wi moo ko def ñu ah. ko signé déclassification ñu jël la fa nekk jox ko El Hadj mu delloo ko askan bi pour rek askan bi a am ay dëkkuwaay te nag gis nañ ni El Hadj moom rek moo nekk koo xamante ni doomu tey waaw ci litige boo xamante ni am na ko ak nit Baba Diko mosul jaay terrain am ko prix te léegi lépp loolu koo ëmbaloon monsieur Alioune Badara Gueye boo xamante ni moom wu Sopp Ndabi SA moom tamit di jàmbaar te ca moom booy boo demee logements sociaux ko élagement def donc vraiment liggéey élagement nekkatul na loo xamante ni ñëpp ñu ngi ciy teg di gis bu baax en tout cas li ñuy wax mooy ñaanal ko gudd fan ak wér loxo xam ne daal kooku mel ni élagement dañuy def lu ñaanal ko waaye ku ko am ci dëkk war nga koo téye war nga koo jàpp ba pare aussi c'est un homme apolitique politique wul il fait du développement social loolu moom moo ko tax ñun nag ay actifs de développement ànd ci ak ñun di ko liggéeyal macha allah maa ngi remercier bu baax télé bi bu baax ndax nag sama ay frères ñoo ko yor ñoo xamante ni ay tailleur lañ ay jàmbaar di leen ñaanal ci bonne continuation jërëjëf soxna maam Seynabou Ndiaye talibé Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul conseiller technique man nag sama ñëw fii Alaaji Mor moo ko waral ñëwoon ci sargalam bi samedi bi passé ak tey juru tey bii parce que ñun waa dañoo sonn jël suñuy alal di ko jox promoteur yi promoteur yi lekk nañ suñu xaalis depuis 2006 ba léegi jotuñu benn kër léegi nag ñun ñu gis Alaaji Mor Gueye jël alalam di ko tabax di jox askan yi nga xam ne jotuñu seen loxo jotul seen gannaaw ñu wóolu ko nag ñun ñu topp ci ginnaaw Alaaji Mor Gueye sopp na bi ñu ngi koy ñaanal moo xam lu mu bëgg yàlla ko yàlla may fan ak wér gu yaram ndax Mor Gueye dundam am na solo am na maanaa waaw ñun waa diaspora moom ñu ngi derrière Mor Gueye jusqu'à la sopp na ndax lii mu def moom dafa rëy dafa fort ku fi ñëw teef tey rek saxal sedd na ñaanal yàlla édition bi yàlla mu njëkk mais waaye yàlla bu xanaa di wax rek ne képp kuy sopp na bi rek wala képp kuy gëm yàlla rek gëm yàlla ci rek nga appuyé ko te xam ne lii muy def moom wax dëgg yàlla am doomu daara rek moo lii doom man ko ku ne bëgg nga tey jii sa frère man nga ku ne bëggoon nga koo man kon ñu koy ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér ak wér di ñaan lii di def bu ëllëgee bu déwénee bi yëpp la tànt ba mu fees incha allah dana xam ne lii rek moom moo ñu yor te groupement sopp na bi Mor jiite ko wax dëgg yàlla am ñun bépp groupement bu nekk Thiès nekk sopp na bi rek di ko appuyer di moom lépp lu mu wax ñëw rafetlu nañ ko bu baax di ko ñaanal yàlla lii daal mooy sunu teewal teewaay tey jii ñëw jàppale Mor Gueye Sokhna moo loolu alaaji Mor Gueye Sokhna bi jërëjëf yàlla yàlla doon sa jàmm yàlla saxal la yaa bëgg yërëm euh, ci bi rafetlu émission jërëjëf parce que alxuraan lii nga tàmbali teral gëm daara yàlla may gëm euh, sa kañ ci xale ngay nekk suñu papa suñu wasila suñu kilifa suñu lépp donc bu organisé lii li ñu def mooy mobilisé ñëw teewal ko ci bis bi ànd seeg samay euh, naataangoo sama sama président sama liggéey Morgan Shop bi donc kontaan nañ vraiment seen teewaay yi ñëpp donc di leen nuyu di leen ci turu Idrissa El Hadj Idrissa Gane ak Morgan Shop bi macha allah merci man sama yaay doon di jaay moom la joxe yaay waaye at moom ko joxe da ko yóbbu Màkka ay biyee Màkka Alaaji Mor Gueye daw na diggante jaayaan ak Amadou kër Amadou Ndëri te buñ ne nit baax na nag dañ naan mbokk yaa ko wax kon ma ko mëgay gumba ak ma nooru saakil ak borom mbay yal na ko yàlla fay yal na ko teg seexlu ci barke yaa Rasulullaay dañ koy baax na mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ah di wax rek ne alhamdulilahi rabbil alamin wax dëgg yàlla waxati alhamdulilahi rabbil alamin waaye waxee ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax nga xamante ni moom am fii di promenade xam ni diine macha allah drapeau l'islam jógati na ca kaw a kaw a kaw te ki ko waral mooy alxaaji Mor Gueye sopp nabi macha allah mu ànd ko alxaaji Idrissa Gueye di ànd dooleel daara doomu daara ci Thiès yëpp gis ci seen bopp macha allah te lii rek wax ni du kuréet ndax nag alxaaji Idrissa ak alxaaji Mor Gueye yàgg nañoo jàppale sëriñu daara yi. moo xam ci lu feeñ la moo xam ci lu nëbb la kan duñu wax rek ni macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne daje bii yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu daje yàlla yàlla guddal fan yi doolu wér gi fii di nag yàlla fi yàlla doolu wér yàlla sàmm kilifa diine yi sàmm kilifa aada yi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala di gërëm alaaji moom day sopp nag bi ñu fi tax a ñëw ñu dëkk moom na dëkk bu rafet macha allah bokk nag def ay ati ati Alaaji Mor ku ne xam na xolam yéene na nit jàmm yéene nit allah kon lii du sens la laaj mooy sopp na bi amuñu luñ ko mën a fay du wuy si ko ci bésam bii tubarkalla macha allah kontaan nañu trop yàlla ko def ay xam ni ci concours yàlla def ah, mu jël raw gàddu gi jël premier ah, toog ak way juróom ah, ñu bàyyi leen rek bàyyi way jur mu def kàddoom yi njëkk bàyyi ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulah. baax di leen di leen delloo néew. alhamdulilah. waaw sant yàlla subhaanahu lu yàlla dogal ci moom. muy wala muy safaan. yàlla mooy di ko def. te jaam mu aussi mu sant ko. dañ naan alhamdulilah léegi bi nga xamante ni tatimmu saalihaat ban conseil ngay jox xale yi bokkaloon bi ba ci daara rek ci daara ji fa mu génn mu jógee daara la. waaw xanaa ñëpp rek xool ni moom ku góorgóor rek incha allah da nga am résultat waaw loolu rek la. sax xaaral nga ci moom léegi bu koy man daar laay roy suma daar la léegi fa la jàng fa la fa la tare waaw alhamdulilah macha allah alhamdulilah ban euh, message ngay lancé wuy juri ngir mu ñëw seen doom ci daara wa bi dalika falyatanafas almutanafisun maa ngi xale yor waa ngoofu ku man na gaaw alhamdulilah jërëjëf maa ngi lay nuyu ñu ngi sant xol bi sedd na lool de sedd na kay waaw yàlla dogal ci jàmm rek noonu waaye si bi ngay ñëw xaaroon nga tey nga jël raw gàtt. xaaral bu nañ ci yaakaar. Ah, ñaata la ah. sant yàlla rek ngay wax sa moroom yi xam ne tey ñu ngi daara ji. xanaa gën a góor góor nag ndax ku jéem ku bëgg dara jéem ci gëm ko rek incha allah yàlla na la الشيطان الرجيم الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم mbokk yi ñu ngi ci ak xam ne moo jël deuxième di Amadou Ndiaye ah, ñu toog ak toog ak sëriñam moom it euh, ñu bàyyi ko mu nuyoo wax ñu ban yëg-yëg la am tey. waaw aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu suñu borom yàlla defal ñu jàmm ak sutura yëg-yëg bi ñu am rek mooy sant yàlla ndax 63 xale moom di dara sa ndongo bu jëlee deuxième ah da sant yàlla bu baax xam ne. mérité na ko waaye ñi nga xam ne gagné na leen tamit ñoom tamit dañuy gën a defarwaat rek ndax Alxuraan noonu la euh, kenn mënu ko waaye nag bu compétition amee ci yàlla dogal mu gën a dal gën a jekku Alxuraan wala gën a euh, chance am gën ceene yàlla man na ko defal ndam te concours chance la chance la moom yàgg na dem concours léeg mu am dara léeg-léeg du am dara. waaye dañ koy defaraat rek mu ñëw ba tey yàlla dogal mu ñëw euh, jël trophée bi kon it euh, sant sant sant bu baax la te boo xoolee tamit euh, business mooy ñaari xale yu raw ya dëkkuñ Thiès Mboro lañ dëkk kon moom rek moo dëkk Thiès kon daanaka moom moo jël trophée bi ñaari xale yi Mboro lañ jugee boo xoolee tax daara mbir mi Thiès lañ ko organisé première bi Mboro bi Mboro kon deuxième moom moo dëkk kon daanaka moom. Euh, mën nañu wax ne mooy maire biir Thiès waaw loolu la ñu waaw Mohamed moom yàlla defal na États-Unis la jógee damay juróomi at ñu indi ko ci man mu des ñetti at ñeenti at mokkal Alxuraan ñu téye ko mu jàng Alxuraan di jàng français bi nga wax ne mi ngi def quatrième école française bu ko yàlla maye mu am bag bag wala bëtam day delluwaat États-Unis dem dem dem continuer njàngam. ngay ñëw amoon na waaw bi may ñëw amoon naa yëg ne ne day jël première sama xel xalaatu loolu sax na dina jël deuxième ak maa jàppoon ne mooy jël premier mais xalaatu moo li dina jël deuxième maanaam léegi kañ laa doon am déception mooy ñun lim trois premiers yi te bokku ci boobaa moom damay am ndax yëg naa ni ndax daaw comme Sénégal bii passé région de Thiès dañee dem di fo di fo ba ñu gañe ko bi ñu ko gañee nag dama ko xas teg ko lu métti mu xam ne xas yooyu dëgg la moo tax bi mu waatee dajee xale yi fii xam naa ni deneen gaye man aw moon sikki saaka ne dana bokk ci trois premier waaw première kay laa loo wax naan dana ko jël du ko jël waaye aw moon sikki saaka ne moom euh, dana am loolu ndax us ay sëñ daaraam yi ko du ko jàngal ci daara ji may ñu ko dara dañ koy dërëb ba mu ba mu sonn ndax daara ji waaw loolu moom sant ndax euh, alaaji Mor Gueye soob na bi ànd ak Idriss taw féex la ñu def ndax lii dana tax tey man bu déwénee ma mën a préparer beneen xale bu dul moom ndax su ma juumul le trois premiers yi ñoom dootuñ bokkaat ci concours gi dañ leen di éliminer kon man kon sëñ Daara dañu a defarwaat a defarwaat ñu nit dañuy defarwaat a a présenté waat nga yu nekk ci daara ja du moom rek kon daal ñu ngi sant bu baax suñu parents d'élèves yi tamit tey ñoo xëy ñëw gunge ci xale bi. maanaam nga supporté ko doole ko doole ndax jàpp xam nañu yaakaar xam nañu Samsung daal li muy ñu bàyyi ko xel ñëw supporté ko dooleel ko ba yàlla tey jox ko jox ko trophée bi ñu ko tuddee dootu ah, ma daal dootu ma ndax mérité na ko moo ko naaru xaan depuis 2018 la tari alxuraan kooku moo tax euh, yàlla yàlla barkeel daal macha allah. Mohamed ñu bàyyi la nga barkeel أعوذ بالله من الشيطان حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم ñu ngi leen di fay nuyoo baax di leen ziar baax a baax di sant sunu borom tabaaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen sant bu baax a baax ci taxawaay bi am nañu mbégte lool macha allah am nañu mbégte lool ndax ñun yàlla dafa dogal xam ñu lu alquran ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ci la suñu yitte yëpp jëm kon bu yàlla dogalee am mbooloo di di ci jongante suñu borom tànn nañu bokk ci njiitu waaw ñu am mbégte baax baax. waaw xanaa ñu gën a góorgóorlu rek. gën a góorgóor te xam ne dafay téere bu jafe waaye nag ci la yàlla làq ci yàlla làq teraange am nag àllaaxira moo tax a jafe ba tax képp ku ko bëgg il faut nga nangoo sonal sa bopp sonal sam xel sonal say cër xaw a nangoo tumuraanke tuuti waaye incha allah bis boo ko mënee rek coono yëpp dañ jërëjëf ñu ngi leen jërëjëf mbokk yi seetaan RTT TV amoon nañu mbégte ak bànneex teewal leen fi nga xam ne mooy promenade bu Thiès ci euh, bis bu am solo bi nga xam ni Alaaji Mor Gueye sopp na bi moo koy woote ànd koog Idrissa Gueye euh, mu ngi doon bis bu am solo di bisu lislaam waaye di bis boo xam ne lislaam amaat na ci ndam euh, tey ji ñooñu daara am nañu ndam waaye mboolem umma islamique bi yëpp am na ñu ndam ndax lan euh, sigil nañu tey lislaam euh, ki ko woote mooy kan Alaaji Mor Gueye Sopp Nabi tey samedi yem ak 25 mars fi nga xam ne mooy euh, grand prix bu alxuraan njàngum alxuraan ngay gis xale yi gis nga leen ci image yi macha allah ñetti raw gàddu moo ci am ki jiitu mu ngi dëkk Mboro ki ci topp mu ngi dëkk Thiès ki ci toppaat troisième bi mu ngi dëkk mbooro muy lu am solo loo xam ne tey jii boo ko xoolee rek di nga xam ni lislaam moo ciy gagné RTT TV ni la nekk lu rek ci lislaam am euh, ñu déplacé wu ñëw ànd ak yéen euh, wan leen li fi xew wan leen euh, ni ñu ko dundee ba lépp leer seen bopp mbokk yi ñu sant leen bu baax gërëm leen tey ñaanal mbooleem kilifa diina yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yëpp bàyyiwuñu kenn ci njiital Cheikh Mamadou Mountakha xalif général de Mouride ñaanal seen Mbaye Sy Mansour xalif général de Tidiane ñaanal ñaanal mbooleem umma islamique bi yëpp ci weeru koor wu tedd yi nga xam ci la ñu nekk mbokk yi ñu àndaloon mooy duudu ci caméra bi ak di ca daa ñoo ñëwoon tey ànd ak yéen teewal leen fi nga xam ne mooy promenade bu Thiès ñu jox leen rendez-vous ci beneen jotaay incha allah.